jërëjëf mbokk yi seetaan wasaare làmb nuyooti nañ leen am kontaan ak mbégte comme ni leen koy defalee saa su wolof def na lu def di waxul lu ay di njàmbat démb moo nekkoon le 9 février 2020 stade euh, wala arène national suñu papa Khadim Samb woon fa combat doxoon ci diggante Alioune junior wala Alioune Seye ak ki nga xamante ne mooy ñàkk jariñu grand combat bi nekkoon ci diggante Bour Sine ak Eumeu Sène junior waaye làmb ji dafa amul làmb joo xamante ne moom la askan bi yëpp doon xaar rawatina làmb mu dox ci diggante Alioune Seye ak ñaq jariñu waaye gis ngeen la ca xew yëpp balaa dara ñu ciy waxtaan dañuy bàyyi Alioune Seye mu nuyoo su ko defee ñu waxtaan ak moom ci làmb ji alinsey maa ngi lay nuyu. waaw jili baa daan maa lay ziar maa lay bëggee waaw <laughs> di ziar bu baax a baax a baax di sant yàlla julli si yonent bi di sant suñu ñaari waajur di sant sëñ Babacar Mbacke mu kabaro borom Daaru Salaam mu gaaw mu yàgg fi loolu te wér di sant xam ma monde lamb yëpp di sant sama supporter fépp supporter Alioune Seye numéro 2 nekk rek maa ngi koy ziar di ko jox wàcc waayam bu baax a baax a baax. Alioune Seye li ñu bëggoon waxtaan mooy avance su ñaq lan moo tax nga jël avance su ñàkk jariñu. waaw toll ci lamb. waaw loolu seen normal loolu question bu question bu xam nga bu bu jaadu la wax yàlla. Onze ñàkk dara warulu ko lu dul xam nga nekk fi pour làmb rek te xam ne dama ko war a jël moo tax ma jël ko wax dëgg yàlla ndax làmb toll na foo xamante ni ñi ngay bëgg ñi ngay bëgg duñ la bëgg xam nga yenn saa ngay sacrifié wu sax ndax làmb ji bi ma ko jëlee sama supporteur yi bëri ànduñu ci ndax xam nga dañ ne ma boo ko daanee amul fi mu la yóbbu mais man xam naa làmb ji tax ma mu jëloon ko juste pour xam nga pour relancer waat rek ndax boo jógee ci defee toogaat deux années balance bëriwoo day metti te boobu nekkaatoon naan diw laa bëgg a diw laa bëgg a bëre te xam nga ñooñu bëgguñu bëre yow danga fi nekk di année blanche di année blanche xam nga te boo xoolee sama carrière li ma ci année blanche dafa wu jël ko xam nga jël ko rek pour xam nga pour daan moo tax ma jël ko waaw. yow bi koy jël moment bi koy jël kon doon daw année blanche moo tax nga jël ñàkk jariñ waaw doon daw année blanche mais en même temps moom mi ngi doon def preuve am wax dëgg yàlla wax sa mbaax waaye di wàññi sa mbaax dara mi ngi doon def ay ay jéegoom bëri fi daan fi ay champion xam nga su fi deful woon dara tamit ak lu ma bëgg bëri bëgg bëri duma ko jël waaw wax dëgg yàlla dafay def dara moo tax ma jël ko waaw juste xam nga pour am lu ma doon wane waat rek waaw noonu la. combat bi taxaw mu def open press sànni la track nga sànni ko track ñu ñëw ba jour si Alioune Seye dugg si bi nga dugg see ci stade bi gis ñàq yéen ñaar kan moo njëkk a dugg si. waaw man maa ko njëkk man maa njëkk dugg si maa ko njëkk dugg si waaw ndax làmb yi moom wax dëgg yàlla boo bëggee dégg dëgg mooy li may à chaque rek li ngay def boo ko mënee moom dara du la gaaw a yëngal ndax man am naa fi bis bu ne xam nga boo xoolee situation moo obligé xam nga mu demee nii mu demee mais xam nga ne yow ak say morom ak ak waa axlu laam xam ne combat bi du woon maag ñàkk mais mooy li may à chaque fois lu mënta ñàkk day am dëgg yàlla boo xoolee mobilisation bi muy indi démb ci koo xam ne defet lu jógee toog deux années balance mbër mu mag sax dina bëre tegle cinq victoire te doo indi li ma indi kon nga xam ne man làmb dafa maa yaakaar samay supporters topp wuñ ma ay victoire rek ay défaite xam nga ndax loolu démb la ndax loolu démb la mais loolu dañ ciy sant yàlla rek dañ ciy sant yàlla bu baax a baax a baax moo boo gisee démb stade bi waaw Youssou moom du ngeen ko wax moom mu noppi ngir yàlla. xam nga ku gis démb làmb bi nu mu nu mu nu mu demee démb nga xam ne xam def lu baax rek moo am solo ndax wax dëgg yàlla géejawaay gi yëpp génn nekk sama ginnaaw même ñu dëkkul géejawaay sax nekk sama ginnaaw dañ ciy sant yàlla baax baax baax baax waaw. nga ñëw ndax jàpp naa ni képp ku déplacé wu ànd ak mbooloo bi nga àndal ñëw ci làmb ja fas yéene woon nga bëri ñu ci bari ci làmb li la dal mosuñu ko gis ci yow xamee wuñ la ko yar lañ la xamee ak teggin ak dal ak teey keroog nga ñëw ci làmb ja làmb ji di daw ñuy dem làmb ji di daw ba dara desul lu dul Alioune ci digg géew bi. gis naa la ci diggu géew bi mais am na keneen koo xamante ni laajoon naa ko muy Lac de Guiers numéro 2 mu am lu ko metti loolu ma laaj ko lan moo la metti mu ne ma dañ ma saaga te ñi ma saaga mooy adversaire Alioune moo ma saaga ak ñi ànd ak moom te làmb du loolu ma ni sañ Bas est-ce que loolu tey bokkul ci luy yàq làmb ji ñu dem ba ci digg bi gis li ci xew li ci xew yëpp ci làmb ji mun nga ñu expliquer nu mu demee. waaw li ci xew kay moom mooy ñu ñëpp ñoo gisandoo rek ndax mooy li may wax léegi mooy lu ne faan kenn du ko jeex xam ndax nit ki boo saakoo foo saakoo jaama di nga am jaam mais boo saakoo ay barki maam Serafal ay rek ngay am ndax moom intention bu mu njëkk duggee ci biir làmb jeeg moo njëkkut a baax dugg na di commencé saago di saago ku ne ku ne mu saaga la ba ci la dëgër képp ku fi mu ñëw nekk géej waaye rek saaga na la. te xam ma mënoon na ko beneen def beneen façon. mbër bi boppam moo def ci boppam. moom mbër bi ci boppam caméra moomu tiin du ma waxee sama bakkan barki maam Serafal xam nga saaga na ku ne Abdou Diouf ah guy gi képp ku fa ñëw dëkk géejawaay rek booy bi ñaanal na la te xam nga loolu defaru làmb làmb li tax nga jël ko mbaa bi moom mooy nga ñëw wane fulla ak jom ak fayda ba yàlla def ci lim ciy def boo daanee nga xam ne yàlla loolu la namm ci yow soo daa soo soo daanoo nga xam ne loolu yàlla namm ci yow xam nga la vie continue mais du ay ñëw xiiroo ŋaayoo ndax man sama làmb ba ma dalee bëri mbapat ba léegi musuma sax jàkkaarla sama adversaire naan ko góo wala nangam ak nangam bay saakante ak moom kon nit ki li ñu lay respecté yow yaa koy yow yaa yow yaa koy koy def waaw ba tax xam na xam nga loolu rek moo indi influence bi yëpp loolu moo indi influence yëpp ba pare xam nga bu fekkee ne ñàkk jekk moom ak ak ñàkk wóolu sa bopp ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ci ñoom la ci ñoom la gën a jekkee ndax boo xoolee am benn image yi nii boo boo xoolee bi bi may daw di wër euh, ñàkk mu ngi mu ngi mu ngi mu ngi signalé booy bi naan maa ngi ñëw image boobu noonu boo boo xoolee si image yi di ngeen ko gis xam nga avant loolu boobu moo nekk deuxième bi dernier bi loolu moo nekk deuxième kii bi ndax boo xoolee premier premier kii bi boobu quatrième combat mi ngi daw fekk mu jóge na lee di wër wër ba ñëw ci fi si journaliste yi kii may may dox noonu fekk am na benn booy bu wiiri na le fekk maaj maaj mu ngi koy gis booy bi dabe ma ginnaaw su xob ma sungu su bëri maaj maaju karkara ko moom moog Alioune Sèye Junior xam nga bañ jàppante foofu noonu bañ jàpp Alioune Sèye Junior ak maaj maaju leen après ñu baay maaju maaju Alioune Seye Alioune Seye moom police la fanaan sànq lay doo génn xam nga kon yooyu noonu xam nga làmb gis boo ko jël bu la sa gëm-gëm yóbbuwul ak sa fit ak sa ngor jaru ngay jël làmb ji mais boo jëlee làmb bu ko teg ci gàllaaj mooy indi yii nii rek da ngay dem ñu naan la jekkoo nga naa ut naa xool naa ko yàq nu ma ko yàqee barki maam Cheikh Rafa laa ni bu fekkoon ne man lañ jekkoo noonu xam naa ni ñii gëm nañ ma gëm goo xam ne duñ ne ma utal benn pexe pour yàq làmb ji barki maam Cheikh Rafa kon dinaa ci wane ndax c'est pas la première fois laay bëri di daan c'est pas la fois laay bëri di daanu bëri daanoo ak daanoo fi am soo jekkul tey nga ñëw wane gor ak jom tey ñi fi jekko di ñi fi jekk di ñëw yàlla may leen yàlla may leen leneen xam nga ñooñu ay gor lañ mais man du ma préparé sama combat ay weer ñëw ba foofu ñu naan ay da ngaa ñàkk a jekk ak da ngaa nangam nangam. te ko booy bi booy bi tey bi ngeen jàkkaarloo ci digg géew bi ba daje. Euh, problème bi nu mu demee dafa am lu mu la wis wala daa am lu la sotti. waa jili yow koy ay journaliste ngay def rek di laajte waaye <laughs> moom àdduna xam Sénégal ñëpp ak lu làmb ñëpp gis nañ affaire nu mu demee wax dëgg yàlla man maa ñëw di def samay dernier bouteille di wër booy bi tourné xam nga rom ma maa ngi koy dégg nag ñàq ci boppam moom mu ne damaa damaa saaga booy bi ci sa site bi yi ñoo ko jëli woon démb. ko Ousin demoon na jëli. mu ne man maa saaga booy bi moom moo tax moom moo tax booy bi xëpp ma kii ma koy waatal ci yàlla. billaahi wallaahi wa rabbul kaabati laa la wax ni nit ku nekk la wax tey di nga ko waxaat ëllëg bu fekkee ne booy bi yëkkati naa sama sama gémmiñ rek pour wax ko hóo rek ba kay saaga barki maam Seera Fall laa lay wax ni barki alxuraanul karim bi gi nga xam ne moo gën a màgg ci loo gis ci moom laay waat bu fekkee ne yëkkati naa kàddu saaga booy bi yàlla naa yàlla bu ma yendu kon te xam ne sama bakkan bi moo ma gënal ay làmb ak kërëb kërëb kon nit ki looy wax rek na nekk loo xamante ni xam nga sa aqulaay taalaa ngay wax ndax man du ma waxantu bu fekkee ne moom dañoo def li ñuy def ba pare di ut fu ñu wéeru naan ay maa saaga booy beeg nii barki maam Seera Fall saaga ma ko sëñ Fallou lekk laa yaakaar moom laa gëm barki sëriñ Fallou Mbacke ma yaakaar saaga wu ma ko. yaag booy bi kon lu waral coow li ci digg géew. li waral coow li kay gis ngañ ko man maay def sama wër kii bañ na ko bu ñuy ñëw sama maa ngi koy ko bàyyi xel mu mu mu dox deux pas sotti sotti ma li may sot li may sotti xaw ma lan la lan la jëriñ xaw lu mu ci def xaw ma lan la te nag wax dëgg yàlla làmb ji toll na ma foo xamante ni du liggéey sama liggéey ba yegg ci foofu benn benn espèce ñëw fi di ma ko yàqal wax dëgg yàlla waaw làmb ji xam nga moo tax mu demee noonu mu demee. li ma jaaxal mooy dala koo sotti rek nga tàkk. mel ni kuñ sotti ndox bu tàng. loolu bis bi moo ko laajoon rek. ba pare préparé loo xamante ni xam nga ñëw pour jël si ndam le rek xam nga. juste bi ma ko bi kii yàlla xam na ne xam nga pour kii mais li mu ma dóor si boppam ba sama deret génn looloo looloo ma gën a tàkkuloo waaw ndax bu fekkoon am na benn am na benn genn benn laar bu mu yoroon ak benn bëy jën waaw bi mu yoroon moom mu dóor waaw. Euh, ñaq nee na moom booy bi loxo kese la la dóor yor dara. mooy loxo mooy li may wax fu nii fu ñu fu ñu lu ñu ut ak ni kii mooy loolu du man maa koy wax caméra yaa ngi fi site internet yi fa newoon yëpp dugal nañ ko 2 euh, mu ngi fa xam nga kon man du fi nekk naan lii am na ak am na ñun xam nga dofuñu jinne jàppuñu. ñoom def nañ erreur nañ reconnaître seen erreur bu ko defee xam nga ñu war ñu waxtaanal ñu war a waxtaanal mais ku xool làmb ji xam ne man préparé naa bu ma sumee ñëpp xam nañ ne xam nga kii entraîné na waajal na mu war a waajalee waa géej waaye ànd nañ moom gis nga mu mobilisation mobilisation boo xam ne amul fenn man dinaa ñëw ba di yàq làmb. mais moom xamal nañu bu sax ragal juddu ci. xamal nañu ñi bi bi bi bi la xale bi bi nga jékki-jékkee gaañu ci làmb ji dem nga jëli ban ànd ak ful boo xamante ni moom àndut kenn ngeen attaqué ko fekk ko ci biti dóor ko ba gaañ boo gisee loolu yëpp manque de sécurité la mooy li may wax làmb ji amoon sécurité bu doy booy bi su ma su ma su ma su ma su ma su ma su ci moom ñeneen ñi sama sama même suñu man ñi ñi ma sama accompagnateur yi ñi ma àndal ak ñi ma ñi àndal ak ñëpp kon du ñu yegg si géew gi mais mooy li ma la wax la waa géej waaye làmb di leen tolloon foo xamante ni te man toll naa leen foo xamante ni tamit xam nga lu yëngu lu ne ne ko yëngal ko ëpp doole mais maa ngi dégg mu naan Maguette sekk moo ko dóor saise man ma jël ban attaqué ko bu fekkee ne dóor naa ko ban bu fekkee ne dóor naa ko ban fi ma toog nii xam nga maa ngi naan ay fiyoo ngoon kon yàlla moo ko fi ma toog nii kon yàlla moo fi jóg. kon dóoru barki alxuraanu karim bu fekkee dóor naa ko ban fi ma toll nii yàlla moo fi jóg alxuraanu karim moo gën a màgg lépp ci moom laay waat barki maam Serap Fall heure bu may wax nag am na sama benn waay boo xam ne bàyyi góor danaa ma bul waat ndax boo waxee dëgg xam nga jarul ndax xam nga yow yàlla xam na mais juste xam na am na si ñoo xamante ni il faut nga xam nga nga nga tegaleen ko ci digg bi mais bu fekkee ne dóor naa ko ba yàlla bu ma jóg fii ma toog te sama bakkan bi moo ma gënal moo ma gënal màgg loo mënti gis ndax dund dafa neex. gaañu gaañu bi dafa mel ni metti na ndax lu tax di dem ngay gën a génnee deret bu bari. waaw mooy li ma lay wax démb li ma perte si deret bëri na mais sant yàlla rek comme maa ngi ñëw taw fii caméra yi tiim mooy wax dañuy sant yàlla rek waaw dañuy yàlla bu baax baax baax te xëy na xam na loolu moo gën mënoon naa dugg ci kombaa bi deret bi génnee ci combat bi ñu duma ma duma yi métti ba pare daan ma man mënoon naa dugg ci combat bi dóor ko deret yooyu génn ci moom ba pare ma daan ko xam nga comme yàlla nii la ko tuddee nag dañuy sant yàlla bu baax xam góorgóorluwaat rek loolu la ko te xam ne jën jeexul géej. Alioune Seye ñan ñoo war a ànd ak mbër yi dugg ci digg géew. waaw ñi war a ànd ak mbër yi mooy ñi nga xamante ni xam nga mooy respecté nañ seen bopp ndax nit ki balaa ñu laa respecté il faut nga sa bopp ba pare. mooy ñi nga xam ne li ñuy def maîtriser nañ ko xam nañ ko yaru nañ tamit ñooñu ñoo war a dugg ci biir géew gi mais jël n'importe kii xam nga dugal ko ci biir géew gi muy def lu ko saf loolu taxul làmb dox ko waaw loolu moom mbëri laa koy lancé mooy képp koo xamante ni ñu ngi koy dugal ci biir géew rek war nañ xam ki ñu dugal ci biir géew kan la waaw. dafa mel ni lu xew ci làmb la muy sottante gàllaaj gis nañ ko ci mooduloo bi muy bëreeg Eumeu seen gis nañ ko ci Modou Lo ak Balla Gaye gis nañ ko ci même chose Modou ak Lac de Guiers bu njëkk ba ñuy sottantee gàllaaj di xeex ci digg géew bi te lépp ñi ànd ak mbër yi la mbër mi jël avance ànd ak ay mbokkam dem entraîner amoo lu dul benn cinq minutes ñu jox la ñaari butéel ne la sotti ko mbër mi ci digg géew nga koy sotti adversaire am loolu bokkul ci luy defar làmb. waaw loolu bokkul ci luy defar làmb mais boo xoolee tamit ba làmb dee làmb ba léegi loolu ci ci ci làmb la bokk. mooy xëppante joxoñante xam nga fasante loolu yëpp ci làmb la bokk mais lu ci mënti am rek nañu xam ne ñu ñëw bokk ndey bokk baay ñu koy defee ci anam bu gën a rafetee yow fekkee ne yow préparé li nga war a préparé yëpp ñëwal respecté li nga li li nga kii rek li nga entraîné ak li nga li nga ñaanlu na la doy nga ñëw bëre mais kantaan di dugg ci yeneen détail moom jaru ko waa maa man du ma ko defaate waaw du ma ko defaate bëgguma ko ma ko def. keroog képp ku nekk ci làmb ji nee na Alioune Seye waru woon dóor bi ni mu doxalee. waru ko woon doxalee waaye dama jàpp ni ku mu doonoon yow rek di yow. waaw ku mu doonoon yow di yow te mooy li may wax tout à l'heure rek nit defukaay la su feesee day tuur moo tax may jaare foofu rek di jéggalu ñëpp rek ndax xam nga mooy li ma wax léegi rek ndox tàngul dañ koo tàngal mu tàng ndax Alioune koo xam rek ci làmb ba ci waa CNG bu ñu ñëw di wax ak man sax dinaa ma yow eh xam na ne yow nangam nangam waxal ak nangam waxal ak nangam ak nangam kon ñuy kuy dem bay def loolu doo ñëw ba jour jour bu mag boobu noonu xam nga prépare def sa xaalis yëpp def sa entraînement def sa coono yëpp ñëw di ko yàq ci noonu. xam nga kon boo gisee dara rek daraa ko waral ni mu demee rek moo tax mu demee noonu mais bu fekkee ne loolu weesu na ma maa ngi jégalu ñëpp koo xamante ni xam nga yaa woon ci làmb jooju noonu ndax boo xoolee làmb jooju moo presque moo fa waaw. ñaq sax ma yàlla naa ko si coow waaw ñaq ndax ma na may dem foo xamante ni wax dëgg yàlla ñaq laay bëri ñu naan la koo kan la xam nga kon ñu ngi sant ñëpp. li ma jaaxal mooy bi nga demee jóge ci ci ci géew bi di dem di wuyu docteur Alioune Sarr lan la woon dala doon xool pour nga bëre wala. waaw naa nga dem ci moom ma muy xool. waaw moom moom moo moo moo wax Abdou Diouf na ma woo léegi mooy woo mu woo ma ma ñëw. mu xool affaire yi xam nga mu xool affaire yi xam na affaire bi blessure bi garaaw na xam nga mu mu ne ma mu ne ma léegi garaawul demal toog demal demal demal toog sa cumbukaay waaw ndax moom xam nga suñu papa la fu mu mënti nekk suñu woowee dañuy ñëw xam nga mu wooñu moom heureusement sax moom gis na li xew waaw bu fekkoon affaire tappale la wala affaire da bañ a bëree moom mat na mat goo xamante ne ne hé yow xaar après nañ jëfalante yow mais xam na ne li fa am yépp du tappale xam na ne dañ ma gaañ xam na ne waaw. waaw te loolu moom moo ci am solo comme moom gis na lépp rek mu ngi noonu sant yàlla. démb bi làmb ji jeexee ñëw naa ci kër gi ñu ne ma Alioune say nekku fi dafa dem hôpital ban hôpital nga demoon. waa Roi Baudouin laa demoon. waaw. fa nga demoon faj fa laa demoon faj ji waaw. médecin yi luñ la wax. waaw dama. <laughs> waaw médecin laaj ma lu ma gaañ ma expliqué leen xam nga ñu faj ma ko waaw waaw faj ma waaw. dañ koo ñëw est-ce waaw dañ koy ñëw barki sëñ Fall boo bëggee léegi ma tepp ko. jaru ko jaru ko dama koy barki maam Serap Fall man du ma ko waxi caaxaan suñ ma ñëwul woon dama naan ñëwuñu ma ko dama gaañu tuuti tuuti wala sax du ko taf waaw. ndax man xam nga nit daal bu même bu ñu lay rey sax nga wax dëgg waaw ndax man ci loolu lañ ma yar ci loolu laa xam bu wax leen lu xam lu ci gannaaw dëgg waaw sant yàlla daal vraiment mérité lii ci làmb ñàkk jariñu mérité wul lii ci làmb parce que benn tàkkusaan moo leen boole ku ci nekk di wut loo xamante ni da koy yóbbu sa kër jàpp naa ni jàmm nga ko yéene te moom it jàmm rek la la yéene ban ban ban ban message nga koy lancé pour que bu ëllëgee yu mel ni bañ a xew ci làmb. waaw mooy li may wax rek mooy ñu respectante rek wax dëgg yàlla moom fu mu mësoon a gis avant làmb ji fu mu mënti fekk da may ñëw ñaar loxo la may jox. wax yàlla mooy li may wax wax sa mbaax waaye du wàññi sa mbaax dara mais nit ki lu dul sa wàll xam nga warul nekk sa wàll làmb waru tax sax ngay soppeekoo ni nga ni nga meloon ndax man man ni ma mel ba ma dalee bëri léegi noonu laa mel samay supporter ñeneen ñu nga xam ne bokkuñ ci làmb sax dañ may reproché loolu del def nii del def nangam mais loo mënul mënoo ko loo xamul xamoo ko te xam ma lu ñu naan koo bàyyi sa ànd rek boo ànd boo dem fekk fa borom wala jubbu bu la wat bu la bu la fal boo ko boo ko wotee rek kenn dootu la xàmmee ba tax na nit ki na ngay naturel lépp noo noo mel ren rek na nga fexee déwén ku la gis xam ne kii kat nii la meloon mais laamu ji taxaw na soppi xam nga c'est normal sax bu laamu taxawee nga kii mais ak xam ak façon soppeeku bi ngay soppeeku mais taxul ngay saaga kenn taxul ngay def loo war def ndax àdduna doxewul noonu ndax suba suba suba dañuy war a dajawaat feneen suba suba suba war nañoo xam nga séq leneen ak leneen kon chaque jour rek nay rafet te xam ne bokk laamu yi taxuñu war a nekk ay noon bokku laamu yi taxuñu war a nekk di rayante xam nga ndax gis nañ fi mbër yoo xam ne bari nañ fi dóorante ba seen écart yu toj tey ñuy tuddante doom di xam nga di demalante di dikkalante kon à fois dafa war di rafet. Hmm. nga ci ñaq euh, am nga ci blessure ci combat bi jotul am ku bëggaatoon sa combat yi ak ñaq jariñu di ngeen bëre wala fan nga jëmaat ci làmb. wax dëgg yàlla ñaq jëriñ doon ma bëreeg moom ñaq jëriñu ay milliards dootu tax ma bëreeg moom. xamul tax ma wax loolu mooy li may wax rek ñaq jën bi may bëreeg moom waruma bëreeg moom Sénégal àdduna ñëpp xam nañ ne waruma bëreeg moom mais nit ki cër bi mu la jox danga koy delloo xam nga respecté ko xam li mu fi def moo tax ma jël ko mais mu ñu dem ba ci biir affaire yi indi leneen loo xamante ni man comprendre ma xam nga mooy bëgg nga xam nga nga resté sa cool même booy jël keneen sax nga jël ko quoi waaw. saison bi balaa man man man dong maa fi ne du moom kese moo ma fi nekk waaw. saison bi balaa jeex bëgg ngaa tooyalaat xaftaan bi tooyoon démb. waa man làmm moom mooy sama métier suba suba sax su ñëwoon ma ma dàbbaliwaat ko ci rek. waaw su ma amul combat damay damay damay damay entraîné ndax lool la ma yàlla nattoo làmm la ma yàlla nattoo dañ ci nekk rek ba keroog duñ ci yàlla di jëli jële di ñu yóbbu ci leneen. ndax ñun amuñu leen lu dul làmb wax dëgg yàlla. géejawaay gi manko gi ñu manko doon benn say ñëw ànd dooleel est-ce que dina tax yeneen mbër yi ñeme la pour jël parce que adversaire ci làmb mi jafe na. ku ci xool loolu moom di nga namm bu rek Alioune Seye ndax géejawaay Alioune Seye lañ bëgg loolu la yàlla dogal géejawaay Alioune Seye lañ bëgg muy mbër mu ndaw mbër mu mag muy ku bëree ku bëreewul loolu yàlla moom moo koy def ci du loo xam ne dama dama ko fee wax ma def ko fi mais yàlla moom mooy jël cër xam nga def ko ci nit te loolu nag dañ ciy sant yàlla bu baax baax duñ ci naagu benn yoon ndax fois rek ñun mbër mu mag ak mu ndaw lañ kii mooy lii xam nga sama benn copain di wax naan Alioune Seye ku mu wéetal nga yaakaar ne moom la gën a bëgg noonu la doxee ci ñëpp muy mbër mu mag ak mu ndaw amuñu xàjj ak seen ñëpp samay ñii samay rakk samay doom lañ ñii samay xarit lañ ñii samay morom lañ moo tax su ma jógee ñëpp jóg dañ ciy sant yàlla bu baax a baax a baax waaw. ma lay jëfal bu baax a baax a baax. yow jiili waa daan ma maa lay ziar ndax yow wax dëgg yàlla liñ naan xam nga xale bu loxoom seeteere mu mën a bokk ay mag wax dëgg yàlla bi nga ñëwee ci làmb ak léegi wàññi woo da ngaa yokk sa liggéey rafet na dëgg yàlla yaa ngi koy teg ci accident di la ñaanal yàlla xam nga nga dem bu am ay site site wala nga am ay tele télé télé ci barke Seydina Mohamed ak xam nga sëñ Basirou waaw caméra jantal caméraman ñu ngi koy bëggee bu baax sëñ Basirou xam nga borom baax la ndax wax dëgg yàlla moom lépp lu muy def rek xam nga ci temps la koy teg waaw image yi seet na cadre bi xam nga naaj na daal. waaw ñu ngi bëggee ñëpp rek di sant ñëpp di sant supporter Alioune Seye numéro 2 yëpp ñu ngi leen di ziar di sant Cheikh espagnol espagnol sama doom yaay waaw ak Begaay Waka démb de gis naa jooy ay jooyu kilifa. gis naa ko ndeysaan ci làmb ja jooy yoo xamante ni macha allah waaye làmb noonu la xale la boo xamante ni macha allah Alioune Seye junior Alioune Seye 2 def na lu ne ci làmb. bëri naag champion bu ne ci làmb te wolof daf ne mbubu bi nga xamante ni doo ko solal sa bopp bul ko solal sa nawle làmb ñun ñëpp benn lañ te àdduna boo ci nekkee yéene ñëpp jàmm donte bu ñëpp amul jàmm sax di nga am jàmm ngir yéene gi nga yéene doomu aadama yi boo fi nekkee nag yéene ñëpp safaan wa ñëpp dañuy am jàmm waaye yow doo am jàmm kon ñu leen di tàggoo ci tàggoo bi nga xamante ne moo du tàqaliko ba léegi incha allah ci beneen xew-xewu làmb jërë ngeen jëf mbër jaajëf kontaan